ak si leen ak jàmm si seen rajo bi amul morom te jafeerooy rajo Ratonga ñu ni yaay dong moo mën a xam soxlaay doomam waaye nag nañ waxante dëgg ndax loolu war na tax yaay war a dugg ci dund doomam di lijjanti sëyam ba di ko jural naqar déedéet ci lépp lu mu di gis da nga cee war a ànd ak xol bu dal yenn saay nag dafay baax tuuti nga génn ci biiru aada lu ko moy di nga mujjee ci ay su yëgoon te bu boobaa day weesu xaritu ratanga ak feneen ay ca leen ñu dem déranger ñu nekk ci seen liggéey dangaa mënul xaar sa tour oh, waa baal ma c'est sama biir mooy metti et am sa ticket. ah déedéet. demal jëndi sa ticket. soo paree nga xaar ba ñu woo la. de toute façon niruloo ma sax ak ku sonn jógal. du gis nga jigéen ñi ñëpp toog di xaar. waaw kay defal ni ñoom. yéen maladie jàppale leen ñu liggéey bi mën a dox ci centre bi. te pour loolu nekk il faut ngeen respecter tëralinu sage-femme yi dégg ngeen ma. waaw parce que man xaalis. eh waa yow fii mooy croix rouge nga dellu si waat xaalis. c'est la vie à Ratanga la vie à Ratanga c'est la déedéet fanaa ne jàmm de. lan moo xewati encore. li nga war a def mooy jël beneen jabar loolu rekk ci solo. ñaareel mais yaay du solution yëpp a baax yow tamit. may tontu bay wet. non weddiwuma la sax c'est juste que sama xarit yi essayé solution boobu yëpp jamono ji ñu ngi jéem a réglé problème. bàyyil di ma tuur lëndëm ak say solution yow la gën a xam njariñu famille bi. soo ko deful ma bala te nag ay bu suba dinañ dal sa kaw mais yaay xam nga bu baax ñaata lay fay ak sama liggéey bi mënuma ci faj soxla benn jabar nga bëgg ma takk ñaareel ah ça non gis nga yow maa la jur nàmpal boot la nga di ma ton maa gën a xam li baax ci yow way su ma la takkalee ñaareel léegi nga xam lépp ci yi sax am nañ lu ñu lekk boo seetloo ñun nit ñi moom. dundee pepp kese yomb na. nga loo wax fii laa lay xaar. non dara yaay booy dara déglul bàyyi ma ma xalaat si après dinañ si waxtaan ak dal dégg nga waaye léegi dama war a liggéey nag yaay booy. filles ça va. ci dem toog ma defal leen seen ndékki. xale yi na ngeen tey dinaa yóbbu xale yi école comme ça di am temps pour préparer bu baax d'accord. neexal dara looy def lu dul jëma jëma lakk xoolal tax nga ba xale yaa ngi jooy nag léegi te dara waralu ko lu dul ñàkk respect bi nga am ci man ci seen kanam. bàyyi ma yaa ngi may gaañ bàyyi ma. soxna si lu la dal. sama biir mooy metti. na sa xel dal dinañ la consulter. yoruma xaalis. baax na ñëwal. toogal ndànk rekk dallul ma seetal la salle bi ma lay consulter dégg nga dina baax. waaye lii lan la. ma ne kii na dem jëndi ticket fii amul faralaate. mais kii dafa sonn yi war a xool li ko dal ba pare i sonn mu mel. foo teg sa bopp yow ku bees ki da nga maa bëgg a jox ordre dinaa wax docteur Moulay ne yaa ngi yàq liggéey bu ñu tëral ci service bi. dinaa ko consulter que cela ou non. su fekkee ni danga may wut ci suba si waat naa ko waatal naa la ne di ma trouver. eh bien tant mieux. mais yéen ñaan ñi lu leen dal jànq bi amul ticket ba pare may wax mu naan daf fay indi coow rax ci may wax assistant taxaw fii naan daf ko ciy jàppale. man comprendre naa la waaye dalal ngir yàlla. yaay xam nga ni ñu ngi def lépp pour liggéey bi mën a jaar yoon ci service bi. ngir ñu bañ a déborder. waa moom sax kii lu ko jot. nee na biiram bi moo ko sonal torop sax. bon assistant jéem koo seet Corsa eggalit say consultation te ngeen xam ni xale yi dëgg la mun ngeen bañ a déggoo loolu mënul ñàkk ci liggéey bi mais jàppoo solidarité mooy tax ñu gaaw a am résultat jàppali leen ma waaw jàppali leen ma. mënatul dara ci liggéeyu centre bi en tout cas duma seetaan benn yoon assistante def li ko neex maa ko wax man Corsa

lu waral ma nga set si ma ak sa mbégte bi Maguette damaa ñëw jënd si ay cadeau yu war a yóbbul waajuru jabar taala ji war a ñëw lan deuxième femme soo bëggee jubbanti saawa bu bon utal ko wujj ci teel waaw Emma de nag waaw moom naka la réagir ba nga ko yëgale bii nouvelle ci jéemee dara dina gis te loolu munu ci def lenn nag eh rokko ba foog nga def ndànk bu baax si mbiru ñaareel gis nga fii dund feeg benn jabar nu mu méttee ump la waxatuma la nag ñu am deux femmes. yow da yàgg dëkk ci ville bi moo tax nga fàtte suñuy caada depuis kañ la takk ay jabar doon problème fii waaye man xam naa ni li jàmp te jarut li may préparé fii ma toll mooy takkal taal ñaareel. Hmm. kon jox ma foofu kilo suukar ak farine. na ngeen def bàjjen jàmm nga am tante Rokoba. na nga def tulli. ah. oh sama nene Sira. Hmm. bébé Sira. Maga dafa tawat. ba tax yow yaay indi Sira. oh non man maa bëggoon mu noppal tuuti rek dafa sonn temps yi neewoon naa ko sax mu arrêté liggéeyam bi. <laughs> nii la jëkkër ju baax nii la wala mel. góor yi si quartier bi waroon nañu jéem a jàng si yow dina baax lool sax. <laughs> jërëjëfati. tulli. waaw tante. yow xam xale yu jigéen ni village bi doo fa jéem a utal benn ñaareel pour Talla. Talla obligé wul dem ba village di uti ñaareel foofu am na ñu nekk ci ville bi fii te sax jigéen ñi ngay jëlee village takk leen ba indi leen fii parfois ñooy gën a fuy foofu te gën a soppeeku ñi fi nekk. waaw maa ngi tardé cee caw ba jëm. jërëjëf Tulli. voilà pare na dama lay defal prise de son defal ndànk ndànk rek voilà baax na il faut que defal la yeneen examen. fayal ma yeneen examen mi ma Aminata est-ce que def nga rapport sexuel ci fan yi ñu génn wax ma leen bu ma nëbb dara lépp loo ma wax kenn du xam dara waa kon maay ñëw dégg yaay dama soxla say conseil ci xale bu jigéen bi mooy ki biiram bi sonaloon trop maa ko doon defal ay examen euh, te yaakaar naa ni dafa am ku ko forcé ngir te dox moom ah oui yow jaajëf yow nan nga def ba xale bi wax ndax duñu faral di wax loolu en général surtout nag bu fekkee dañ leen sàkku en fait non xam naa ni looloo am mais nangul wax sama jigéen na nga def euh, tur bi naka la. Aminata. wax ma sa âge. 15 ans. fan mooy seen quartier. su ginnaaw autoroute bi. daa am koy génnal. kon yaa ngi ci sëy wuyu ma. ndax mës nga am kenn ku la forcer bëgg a tëdd ak yow te bëggoo ko yow. Aminata boo waxtaanul ak ñun ñu mën a xam lu la dal vraiment. accident nañu dem bon moo gën ñuy yàq suñu jot ci ko xam ni bëgguñu wax lu ko dal am na yeneen malade yu ñuy xaar ci biti nañ dem déedéet ngir yàlla bu leen dem kon baax na wax ñu lépp ma doon sëyeeg koo xam ne sumakoogis saa su ne daf ma daan forcé di tëdd ak man. dinañ la toppatoo bu baax mais pour loolu il faut nga waxtaan ak sa jëkkër te nga fexe mu ñëw nag ci centre bi. man bëgguma fa delluwaat s'il vous plaît ngir yàlla. dina baax sama doom. sama xarit yow jàppal ne am nga kër ba pare ndax man mii ngay gis nii maay courtier bii wutal kër ministre yi yi waykat yi pàcc sax footballeur yi ak ponkal yi nekk ci réew mi yëpp lii moom yow laa koy te doo ci am benn problème. xoolal man infirmier laa duma médecin dégg nga. mais bon xam nga fii moom. nga nekk médecin sage-femme garçon de salle si finition la nekk nii xaaral rek dina rafet lool dina rafet trop sax na nga def góor rafet bëgguloo ku la wéttali yow ta la kii patron bu mag la buyul appartement amul seen jot eh yow mii kenn waxul ak yow xaaral rek bii moom gis nga de docteur ëtt bii am benn problème c'est vraiment l'ambiance garantie. man dama tàyyi sa yëfu dof yi mais yàq sama temps nii. mais yow yaa ma waxoon bëggóolu cher tamit. mais bul dem docteur oh mais xaaral am naa fi yeneen appartement oh docteur bul dem xaar ma infirmier ma xaar ma. Bonjour Badiane. Ah. <laughs> ça va ah dama bëggoon benn. ma belle toutes mes félicitations. félicité ah, si lan. si sa wujj bi waaj a ñëw yow tamit. wujju c'est quoi cette histoire. Euh, Rokoba moo ma ni da kontaan si sa wujj bi. baal ma de sama doom kon yëgoo woon dara si waxu wujj bii oh cey rokko baa Amady lan moo la jot danga feebar lii moo raw maladie léegi laa yëg ne Talla daf may takkal wujj te Rokoba mooy dem village ba pour jëli ji ko. takk <laughs> ñaareel ci sama xarit mais lii xalaat bu rafet la ndax yàlla nga am jàmm ak Rokoba su boobaa mu may la jàmm comme ça nga gën a am jotul yi te doxi sa yitte mais yow te sérieuse xam nga li muy dund ak Rokoba su fi ñaareel ñëwee mooy tey laay gën a deewati mujjee safara. xam nga lan la war wax jigéenu quartier bi wóor na ma ni dinañ la xelal te sax itam balaa boobu xëy na taal a génn si ah espérons yéen xanaa rusoo leen di sol sol cooko yu bon yi yéen xanaa lu ngeen di su la déranger mais kon nga bañ ko xool yow lan pëttu mbaasaan yi ngeen doon nég rek ba xam wallaa di ci mos am bés waaye su ma la waxee yenn genre ku ci laa dajal mu yóbbu ma see appartement yu salte yoo xam ni mais tëj sama jabar fii xam naa ne moo ngi fii wan leen ma fu mu nekk sinon dina métti trop si yéen yéen xamuleen sax ku ngeen amal affaire <laughs> yow lu xew ba may rey nii. non tonton xam naa ni xàmme ma c'est normal bi la man la jabaru laa sena mi ngay joué ndool daam. yow fi nga nekk. waaw comme ñi ñëpp nag. te mun naa laa assuré ni ay liggéeykat lañ. ba tax na yow fii mënoo fee am benn problème ma lay ñaan nag nga dal ah? sama soxna fu mu nekk laa bëgg xam du waxoon naa ko bu mu ñëwati fii. waaye nag déglu lu ma du jigéen ñi rek ñoo war a nekk ci jàmm fii seen jëkkër tamit na sa xel dal maa ngi dem toppatoo sa jabar bàyyi ko sama loxo bon euh, euh, waaw d'accord mais mais yow sama jabar fu mu ne ma ne su fi nekkee dinga ko gis léegi nekkuñu fi nag pour di tëj jigéen ñi nag tonton toogal ñu toppatoo la léegi ma may la ndox sa yuuxu sanq yi daa metti nag baax na kon mën nga ko dindi jot naa sa résultat examen yi tu es enceinte xamoon nga ko waaw waaye bëgguma woon garder ëmb bi bëgguma woon nekk sa femme ci yàlla est que mën nga ma jàppale ma dindi ëmb bi s'il te plaît. gis nga tonton man rek maa mën a régler problème yëpp fii ñeneen ñi nekkee ñu fi lu dul toog di yàq xelu femme yi loolu yëpp ki ci diir dong la. chef bi lépp la ma expliqué da ngeen war a toppatoo wér-gu-yaram jigéen ñi mais pas seen sëy yi wax ma ani sama jabar wan ma ko anamu. mais sëñ bi mais ñu nekkuñu fii pour nëbb ay jigéen féexal seen xol moo ñu tax a jóg. ban xelal ngeen def di n'importe quoi seen biir xel yi nga naan dama bëgg gis sama jabar léegi léegi sinon di ngeen am affaire ak man ah mu ngi nii. maag yow du fii la ñuy régler suñu affaire ma di leen xamal ne dootu leen ko gisati mukk fii assistant docteur Moulay ak man dañu am projet pour taxawal benn bërëbu xibaar bu jëm ci ndaw ñi ngir waxtaan ak ñoom ci seen néegu sëy assistant jox nga ma benn xalaat comme daanaka yaa gën a féete ndaw ci sage-femme yi j'espère que yow di nga mën taxaw bu baax a baax ci suñu programme boobu. yow lu ci sa xalaat. baax na. ay ci kay pour lan nga may dawloo nii rek ah foog ma lay surveiller ndax danga sox trop ay voilà bêtise ah sotti sel si sombi papa c'est pas bien ça yaa demandé de mentir abu ah, fenul mama dama de yow am nga jotu toog di gént gaawal waay taala léegi mu wàcc

rangel la sa bureau bi tuuti mbaa garaawul rek. jërëjëf Corso kenn gënu laa xam ni bureau yi docteur yi foo leen fekk dañuy jaxasoo jërëjëf ci rangé bi. au fait euh, ma profité pour fàttale la ni amatuñu matériel bu doy fu mu nekk nii ci centre bi. lenn rëccu ma ci maa ngi ciy dox looloo waral nag jamono yi maa ngi saytu lépp li des te mën a indi gàllankoor ci liggéey bi. loolooy problème mu hôpital ak poste de santé yi maanaam seen jumtukaay du mën mukk waaye dinañ ci sàkk pexe. noo yendoo tey lépp jaam na jaamu yàgg. ah foog ñu jëm koo ñefe ak jafe-jafe yépp waaye gisuma luy tax ma changer sama métier mi ma yor surtout bu ma àndee di ko def ak ku mel ni yow. en fait docteur di nga mu mën a déposer parce que dama tardé te man ak yow ñun ñoo bokk yoon. nga baal ma de Korsa su ma jógee fii ñibbeegu ma. loolu du dara docteur. tala gis nga sa yaay moo def xorom ci sa sombi bi mais nan nga mën a jiiñee sama yaay lu mel nii yow si abu laa ko yëgee te xam nga ne xale yi il monte pas lii yëpp muy def pour dugal ci sa xel ñaareel bi mu bëgg et trop si trop chérie xam nga ne sama yaay du jaxasekat comme ni ko foogee abu mënul attaan potu xorom bi étagère bi dafa njool alors su nekkul yow Dumman. Alors, qui est-ce Imadi. man dama yaakaar ni histoire ñaareel bii moo sa bopp bi dama bëgg nga xam ni bébé du ma mës a takk ñaareel. bàyyi ba arrête kii xale bi. Dia <laughs> dafa mel ni ñenn ñi seen soxla moo leen jiital muy fii di fee nañu bàyyi xel te xalaat bu baax si lii di sëy yu teel yii ndax nañ waxante dëgg nag kenn waratul nangu jëf yu ni mel jamono soppeeku na nag ak lu mënti xew ñuy am yaakaar ni suñu assistant mii dina mën a dimbali Aminata ndax taala dina déggal yaayam ji di Rokoba mi ko bëgg a takkal ñaareel <laughs> waaye nag. sama gaañ yi bu jaaxaan jeexee dëgg des sunuy problème waruñoo tax a def lu ñu neex <laughs> kon boog sama gaañ ñu déggee ko noonu xarit yi ratonga ak ni ñoo faa ak feneen bu leen mukk ni ñoo faa <laughs>